c'est aujourd'hui qu'on est plus déterminé Manam, tay la ñuy gën a duut ci li nga xamanteni moy mooy askan wi parce que mënuloo ñu yaakaar ba pare yàpp ñu su fekkente ni suñu njiit yi dañoo nangoo nekk ba léegi jaamu France ñun askanu Afrique duñu ko nangu comme nous sommes pour dire à la France que cette génération consciente cette génération libre bi nga xamante ni dagg na buumu jaamam nous la vache à en France ndax li ñu bëgg ñun consommateurs yi muy neex orange muy naqadi orange dinañu ko am ñoom dinañ ko def par force parce que le client est roi mënuloo ñu yaakaar ba noppi yàpp ñu des fois da ngay gis ñoo xamante ni duñu comprendre dañ la naan bu la ci lii naree fekk nga changer opérateur d'accord parce que aussi c'est valable pour y opérateurs Orange là mais vous euh, opérateur aller mais le combat il est valable pour tout autre opérateur mhm. amul Samba Demba multinationales Nous on n'est pas raciste au contraire ils sont bien accueillis mais là nous tax nous respecter ñi nga nous ni consommateurs yi interpeller interpellation lay doon xaw Vous di une association des consommateurs di wax ni normalement nous nek sax suñu nous nous la nek mais puisque nous sommes ci. Nous avons ko jël nous ko ba mu mën sëkk incha allah ci yàlla ak mardi bii di ñëw li ñuy lettre de protestation ci 23 agence orange yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Sénégal mooy ñu bañ ca yegg mooy ci bi day taal yi wala ci bi ñëw këyiru ñu dugal ñu ci police yi denc ñu waaye talaata bu jotati ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinañ boycotter lépp li nga xamante ni mooy service yi orange yi te duñu ca dinañ yebal fukk respecter li nga xamante ni aujourd'hui mooy li ñuy dal muy pandémie bi pour bañ a créer attroupement ak pour pour aussi continuer nekk ci li nga xamante ni mooy suñu lignée yebal fukk à la ci agence orange yi fait petit ci nous mi ñu fa lettre de protestation boobu le moyen acte de bi di wax orange encore ni ko ni ñuy mobiliser contre l'électricité la hausse de l'électricité di ko mobiliser ci souffres si di mobiliser ci yeneen yi di ko wax ni ko may chance pour le moment le contexte bi ñu mais bés bu dakkalul lii delloo si tarif yi fi avant le 22 juillet vous avez ñuy génn ci dina gis képp kuy consommateur ci siège